Euh, jant ak ngërëm ñeel na leen ami site a fës ci bopp xabaar yi koo def kii di Ousmane Sonko ngir mu bañ a bokk ci jongante présidentielle yooyu dañ ma ci atum 2024 ginnaaw buñ ko lalalee ay ndëgg sërax yu bëri te euh, capitaine ba woon di Seydina Omar Touré la xam ne nag ñoom ci seen jëmmi bopp duñ mës a bàyyi seen loxo ginnaaw gis ne rek lépp lu ñu nekkee dañ leen ko teg ci seen ndodd ba noppi xañ leen loo xamante ne rek àq la ak di xam ne moom ancien capitaine ba moo di ne nag bu fekkee ne rek intérêt kenn kese mooy tax nag ñu daal di yàq askanu Sénégal yëpp wala ñu yàq yaakaaru Sénégal yëpp nañu dem rek ndax ñenn ñi nga xamante ne dañuy toog ci plateau télévision yi di ci wax loo xamante ne amuñ ci benn xam-xam dara leeru leen ci te ñëpp a ngi ciy teg seen gët waxuñ ci loolu ba noppi rek ñu daal di yëkkati yenn kàddu yi nag wala sax ñu daal di yëf yenn jëf yoo xamante ne ci koo xamante ne yëggul tinul yàlla yàlla moom nag dina atte te yàlla daal moom moo gën bu nit di kàddu yi nga xamante kii di Seydina Omar Touré capitaine ba woon daal dina koy yëkkati ba tey rek bi daal di waxaat moom njiital Sénégal gu dëgg dina nag lépp rek nañ ko bàyyi ci loxo yàlla ndax yàlla moom moom lépp te moom moo am lépp ba tey rek bu ñu jógee ko foofu nag dañuy àddu rek wutali cour suprême moom nag la mu daal di xam ne rek daan bi nga xamante ne daan nañ ko kii di Ousmane Sonko ca appel bi nga xamante ne rek daal di woon na koy def yooyu les